Touba Fall may biige kumba waaw Cheikh Ibra Fall xaal yoon bi di xuus jàll kenn jàllewu ko li yoon bi di lëndëm lëndëm landam lëndëm yépp Ibra la xuus jàll kenn jàllewu ko fii de laa génnee safu leen bismillahi rahmani rahim ange billahi min asheytani rajim la hawla wala hawata illahi billahi alayhi alazim ilaa Touba rek barki Serigne Bamba Touba yee Sénégal Touba way Sénégal Touba di nuyu di leen bëggee di leen safoo di leen tiitaroo di ñaanal sëriñ Muntaxa Mbàkke Balla ay sak Sadio borom ree ju neex gi borom mbégte bi yàlla nga fi yàgg te wér sëñ Bas Abdou Khadar sama xarit yàlla nga fi yàgg te di ñaanal tamit sëñ Abdou Karim Mbàkke borom ma xarit man axlaa sama xarit yàlla nga fi yàgg te wér barki borom Touba di leen nuyu di leen safoo di ñaanal sama jigéen la diva adorée la grande dame l'extraordinaire l'exemplaire Kumba gawloo Kumba Gawlo Seck yàlla na ko yàlla protégé indiwaat ko fullam ak faydam ak valeuram ak personnalité loolu moo gën a tax mu bëgg Kumba Gawla à bas âge ba muy way taxandeer waaw ba muy way seytaane à l'époque seytaane premier clipam laa bëgg Kumba mu nekk xale bu extraordinaire daan sol benn yëre bu wàccee fóot ko bu xëyee suba solaat ko tarbi yu ndeyam tarbi yu baayam Gawlo Seck Masser Daaro yàlla nga wér ak jàmm ñëw ak jàmm elle en France di suivre ses euh, ses yàlla def na alhamdulilah voie bi lépp alhamdulilah mi ngi pare nag lu extraordinaire mi ngi tokkoowam rek loolu moo tax premier dame yi d'Afrique yi bëgg ko classe am am valeur am kumba kenn amul audacieux yéeg ci kaw seenam te oowu la benn Don Diego moo koy fekk muy joué ci boîte almadi ma yéeg ci kaw seen bi def lu ma saf wàccaat la diva adorée mu jox ma gëdd nag jox ma valeur waaw dama daan ñëw ba Djili mbay sama kër grand frère El Hadj Ibrahima Sall ancien ministre du may gis këram ne mu organisé wu musuma fa dugg musuma ko seeti mais sama xol moo nekk ci moom Karim bëggee naa la le notre manager général du nuyu Matar Seck du la famille Kumba Gawlo jox ma Kumba Gawlo li mu way ci waa kër Serigne Touba yi ma xool cëm man Kumba Gawlo man neex booy. lay wallaay talla yaa mën a way. yaa mën na way la diva adorée ki la tuddee la diva adorée naxuñu kumba sa baat sell na sa baat digital na sa kàddu rafet na yàlla na la Serigne Touba teg loxo make Balaye Sakk Sadio loolu man maa ko wax sama baat ca kaw gawlo sagal nga ñëpp te gis naa sa liggéey ci ci màggalu Touba bi te yaa nga ba bitim réew di ko def jërëjëf ma sœur chérie adorée une très bonne guérison gaawal ñëw société bi soxla na la ma lay ñaan nag boo nee cëpp Sénégal jëkkal ñëw sama plateau ñu yaatal barki Serigne Bamba maa lay safo maa la bëgg maa la respecté maa la fong Kumba Gawlo man Kumba Gawlo man neex booy man Kumba Gawlo man neex booy boobu man kese ko sañ <laughs> alors di ko may euh, toute la famille Gawlo di leen ñaanal seen doom seen sœur yàlla suturaal ko teg ko loxo mu dellu si continuer liggéeyam ni mu waree ndax sa classe sa personnalité la grande dame adorée alors di nuyu président de la république di ko wax président Macky Sall am nga chance yàlla bëgg na la ndax bégal nga Serigne Mountakha bala ay Aïssa mu waxal ko euh, gémmiñam président Macky Sall bu dee yàgg may déglu yaa ngi war a dem en voyage États-Unis mais tu très informé ñi la jege tey bu ma la waxoon lu bon wala lu ñaaw wala saaga la léegi ñu jël si ma fii li may wax nii lu ma ñor la am nga chance Serigne Mountakha gërëm la remercier la. sëriñ bi namul dara la nga def Touba mën na ko def mais yow yaa jël say engagement def ko merci à toi li ma lay conseiller mooy nga gën a takk sa fit góorgóorlu wàññi location bi ñu ngi koy kaas lang leen santoon promoteurs yi defuñu ko location bi cher na dund bi cher na wàññil dund bi ceeb bi dawlin wàññi courant bi wàññi ndox bi sénégalais yi juboo ak yow ñu mën a négocier troisième mandat guerre du am sagar du xeeñ bal du takk géej gi du débordé man doon jéego maa ko wax wàññi li nga war a wàññi opposition bi dofu ñu xam nañu lañu ñu war a def yow boo ko defee ñu bàyyi la nga tampe tenté troisième mandat député yi la jege nag di def naka sudul noonu bàyyi leen ñu simi seen muraay kii kirimaan bi jugé leen teg leen ci yoon gënuñu kenn gënuñu fi kenn ndey gënuñu fi kenn bàyyi askan bi moo leen teg assemblée national yow nga jël say responsabilité wax ak président de l' assemblée nationale Moustapha Niass ñi ci war a convoqué ñu ñu convoqué leen teg leen ci yoon Sénégal injustice bi daf fi war a dañ kumba am ndey kumba amul ndey ñi laqatu sa ginnaaw di la yàqal nañ leen teg ci kaso bi ministre euh, ministre ak député moo ci yem ku fi sàcc nañ la teg ci yoon wax naa la ko nag ak xol bu metti man ci digg bi laay jaar am nga chance sëriñ bi ñaanal na la te waa Touba lu sëriñ bi wax murit ndigal lay wéyee bul ko yàq wàññi location yi entamé waat leen wàññi dund bi voilà très bien deux députés yooyu ci passeport diplomate ñu simmi seen yére oo leen convoqué leen teg leen ci yoon très bien voilà di féliciter vraiment président Macky Sall ni ko xalif Serigne Mountakha Mbacké balay sa féliciter di nuyu Jules Kandé ah, fële ca France maa ngi lay béggee bu baax a baax Dansar location automobile waaw Lang Sarr maa ngi lay bëggee Dan saar muy Lang Lang Sarr fële automobile ca deux voies liberté six doomu vraiment papam di ku baax Mbaye Sarr ñu koy ñaanal une très bonne continuation di ñaanal EDK de le DG Dembaka di xarit di bokk ci kër gi nag Dembaka ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax euh, di ko ñaanal di ñaanal Sainte Pleure Sainte Pleure le clip va sortir semaine prochaine mi ngi fare fale ca Paris di doomu Sénégal di nuyu baay Diop la grand bu international sëriñ boobu nga xam ne mi ngi paal di taalibe Baye Niass Kumba Abdallah bëggul kenn ku dul Baye Baye Diop yàlla na la yàlla guddal sa fan di la ñaanal gudd fan ak wér yaram ak Thierno Ahmad saw tamit maa ngi lay ñaanal gudd fan ak wér-gi-yaram sama xarit boobu dama am pël am salum saalum Baye Diop bëgg naa la bu baax ak Thierno Ahmad saw borom xam-xam bu sell bi di nuyu Marème Fall Roudeboune xale bu am jom boobu nga xam ni vraiment liggéey rek lay def Marème Fall ñu ngi lay bëggee bu baax a baax di la wax ni une très très très bonne continuation gaaw la sekk nag ma leen di ñaan ngeen gën ko ñaanal di nuyu waa FM boobu nga xam ni mooy télém boobu boobu nga xam ni rajo des femmes et des enfants euh, de la musique waa FM FM moo fréquence bi di 87 point 9 87 point 9 ko déglu bu baax a baax lu am solo moo fay génn très bien di ñaanal tamit korom ak fay sëriñ bu mag boobu di saltige bu mag boobu keroom ak fay maa ngi lay ñaanal di lox yàlla na la yàlla may gudd fan ak wér yaram di ñaanal Cisco. di doom ci jooja Fall di taawu jooja Fall Cisco grand immobilier fële ca Mista bu ma ko waxee damay wax dal jàmm dal jàmm tamit ñu ngi koy ñaanal suñu rakk la suñu xarit la ñu ngi koy ñaanal une très très bonne continuation Henri maa ngi lay nuyu jantal booy di nuyu naar waaw naara ñu noonu vraiment naar naar naar naar naar naar caaroy le maître Sow ok alors maa ngi nuyu naar dama am naar Fatou Guewel dafa am naar ma am naar sama naar bi nag laay nuyu ana sama naar bi moom lay moom lay nuyu di leen wan ni ma ni dama am naar comme ñëpp voilà naar faal maa ngi koy nuyu di nuyu soxnaam sos nga xam ne mooy jigéen ju man góor Adja Faama Sissoko maa ngi lay ñaanal bu baax a baax di yaayu maam jaara bu soo soxna su baax a ngi noonu soxna soosu exemplaire la yàlla na la yàlla gunge protégé la te bu leen loo leen ci xamul nationalité américaine la yore toog fii di say ak ñun luñ ko wax mu def ko luñ ko teree mu bàyyi ko di jigéen ju mën góor di nuyu sa yaay nag sama xarit notre maman chérie suñu goro sama naar bi li faatu géwal naar sama naar bee man nag sama naar baa ngi nii ñu koy woowee murum faal faal njaga yaaram sama naar bi maman chérie ñu ngi lay ñaanal mu gudd fan ak wér gi yaram murum faal yàlla na la yàlla faale maa ko wax yàlla te dina la faale parce que say doom yar nga say doom fa leen war a yaree murum faal yal na la yàlla protégé euh, faama nga am jëkkër ju am jom nag ajaa faama si ko naar faal yàlla na la yàlla protégé am nga fulla am nga fayda xale nga am nga jom yàlla na say jàmm yàgg maa ngi lay ñaanal loolu alo ñu dem xooli sama beneen euh, artiste bi Biram Dieng nekk ci Youssou Ndour di xale bu mën a woy génn lu extraordinaire di taalibe Serigne Touba jàmm Biram Dieng gaaw bi gee ñu dem di mag ci Ami Let's go! <laughs> Don't check. màggal gi ñëw na màggal gi yegg si na Sëriñ Bamba woote na su wootee ñu wuy si ko Balla Aïssa Touba ila Touba Touba ila Touba du ma ni maa fi mën du ma ni maa fi gën ku foog ni li bopp mi yaa fi man demal gene nga gan li ma yàlla wan ci yoon mi yi a teg na lool sëñ Abdou Latif Jenn yaay xalifa yow la yàlla teg ci yoon wi doy nga misaal li ma yàlla wan ci yoon wi man du ma ragal yaay Fatou Sarr sëñ Abdou Latif am nga ngërëm yaa doon sa baay yi ci waar wi yow naaru yaay soxna Fatou Sarr Sidi noonu vraiment dama leen doon ñamal rek xam nga loo gis buñ ko togee ba mu ñor dañ koy ñam waaw ci lépp nag dañuy ñam ñam ñam dafa signifié lu bëri ñam dama doon ñam ngeen xam ni xale bi yàlla na ko yàlla gunge ak voix am c'est la famille Ami Collé Dieng di mag ci di rakk ci Ami Collé jang Sall xale bu mën woy boobu di sama xarit Birame Dieng yàlla na ko yàlla gunge mu nekk nag exemplaire nekk ci ginnaaw grand bi te waxul saxatul xam ngeen roi du ku nekk ci ginnaawam di innové am na ay projet yàlla na la yàlla teg loxo ci say projet alo bu ñu jógee ci Birame Diack ma ñamaloon leen tuuti ñu dem xool xale boobu nga xam ni mooy moo bi ngoom moom tamit way ci màggal bi way ci Serigne Touba génne lu extraordinaire fi mu ne adduna bi yëpp yëpp yëpp yëpp ñu ngi koy déglu pa usu Ousmane Thiaw dijee usu di ko ci gunge waaw moo bi ñu xooli moo bi ngoom ma soog a dugal sama premier invité parce que xale baa ngi noonu am na jom mën na way am na fit déglu njabootam daal di du àdduna wan gannaaw ak njabootam bàyyi fi lépp ñëpp jublu boroomam dem na Gabon si ngor dellu si indi ak ndam dem na gànnaar dellu si indi ngërëm démb tubaab yi mu àndaloon tey seeni doom ñëw nañu di raam ànd ak seeni sët ngir jébbaloo Oh, nom de Dieu au oh, nom oh, mooy kama lampo nit na Bamba feeñ Baay Faal fan lay taayee ba feeñ bay faal fan lay taale ñu ne woon du sore ñu ngi di wàlli si ñu ne woon du di wàlli di wàlli di jébbalu di saawaan di jébbalu di wàlli si daw di jébbalu du kenn ku dul sëriñ ba ba nee na képp ku bëgg topp yàlla te amul ay tekkin du am lu mu bëgg maam Serigne Touba moo ko wax waroo yaakaar mukk ne nit ñi dañu la war a war maal ba ku ko deful mu naxadi la maam Serigne Touba mësa tooñ boroomam mësa tooñ moroomam bu màggal jotee kër xéwal yaa ngi baawaan hey di baawaan di baawaan sa borom ku wéeru si yow defe nga àdduna ak àllaaxira man bàmba ji ku ma jox dërëm mu ba mu nekk ay ngërëm ngërëmal sëñ bàmba jar naa daw ba dee au nom de Dieu au nom de Dieu ndojo sëñ lampoon nit ñoo Bamba feeñ Baay Faal fan lay moo bingoo e eh, baasu xam nga lu ma gën ci way bi oh non oh, ndojo bi moo graw ak fond musical bi ak fi mu naan bi mu waxee Bamba ba pare naan ko au oh, nom de Dieu au oh, waaye sama rek yaa mën a way yàlla na la yàlla gunge ci sa baat bu neex boobu moo bi ngoom nekk fële international en Italie di waaj a ñëw Sénégal nag dëggal boppam parce que mi ngi liggéey mi ngi liggéey ñu ngi ko ci gunge bu baax a baax a baax tous lee médias du Sénégal ñu ngi teg xale bi waaw site yëpp ñu ngi koy teg lépp ci liggéeyam ak fulam ak faydam ak fitam Pa Ousmane big up à toi merci grand gis naa sa liggéey di ci bëggee Faramaren coiffure Faramaren coiffure ne bu ñu ko waxee mooy madame Sissoko madame Sisco di nekk euh, fële ca HLM euh, Grand Médine waaw di soxna su gëm boppam soxna su man liggéey soxna su set liggéey wala bala ko sekk nag yow yaa war a lii ànd nañu Paris ñu dem restaurant Faramaren ànd nañu Italie ñu dem ñu dem restaurant Faramaren alors HLM euh, Grand Médine madame si Cisco moo ma defal pédicure manucure moo may maquiller salon baa ngi foofu Faramaren euh, coiffure salon de coiffure bu mag boobu Faramaren ñu ngi koy bëggee bu baax a baax di ci nuyu grand bi di ci nuyu madame téléphone bi di 78 249 70 24 téléphone bi di 78 249 70 24 ñu ngi lay bëggee bu baax a baax Ousin dal jàmm jantal booy moom it ñu ngi koy bëggee bu baax a baax mu nekk ci liggéey bu extraordinaire Ousin dal jàmm le grand immobilier international waaw moo géré fee Chamista ñu ngi lay nuyu bu baax a baax big up à toi ñu ngi lay euh, ñaanal wér yaram voilà sañ nga toog na mais merci dama ci sama yëf la dama yàgg sañ see du ci nuyu njaga fële ca music shop grand mbaaw music shop di affaire bu extraordinaire tous les matériels sono mondial digital rek foofu la ku ko bëgg na nga fa dem euh, boo ñëwee en face stade le stade de Mbao bi di nga gis njaga mi ngi fa ak euh, sama doom jooju di Daba Diouf mi ngi fa vraiment Seyba ñu ngi lay bëggee bu baax a baax fële ca États-Unis ak suñu rakk jooju Samba ñu ngi leen di bëggee bu baax a baax di leen wax une très bon continuation musique shop bi daal mi ngi foofu lépp loo fa soxla di ngeen ko fa fekk bu soobee yàlla happy birthday joyeux anniversaire à Mbenda Gueye Mbenda Gueye jouru màggal bi la juddu di jigéen ju man góor di doomu ndeyu Marème Fall fële ca bun ñu ngi leen di ñaanal rudda bun foofu lañ dëkk ci bun mu nekk ku bëgg Serigne Touba ku bëgg boppam def lu extraordinaire ci màggal gi dégg dafa teel a yóbbu ay berndeem euh, Mbenda Gueye teel a yóbbu xéewalam luye ay kaar jox ko gars yi ñu leen dem leen Ila Touba moog Marème Fall jigéen ju mën góor googu Marème ñu ngi lay bëggee waaye Italie Napoli ñu lay nuyu sa jëkkër mi ngi lay nuyu di la ñaanal am nga sa ngërëmu ndey am nga sa ngërëmu jëkkër maa ngi lay ñaanal yow it bu baax a baax a baax a baax eh, Mbenda très bien waaw ma dugal suma invité bi nag premier invité ndongo ana bàyyi ndongo après yow nga ñëw alors papi lay talapaciko papiko yesaay papiko fa nekk bëgg Serigne Touba ah xale baa ngi noonu def lu extraordinaire ci Serigne Touba nee na dem leen Touba papi fan lay taxaw waaye fii xanaa. waaw mais papi ñu dem Touba wala. ah dañu dem Touba dañu war a dem Touba. ay waay waay maa la bëgg waay. la nga wax ci Serigne Touba moo rëy. papi na nga def waay. na nga def. waaw maa ngi nii sant yàlla. kontaan ci yow. ma mm. bàyyi la nga jàkkaarloog sa caméra nga nuyoo adduna bi yëpp ak waa Touba ñu ngi lay seetaan. waaw salaamaaleykum adduna bi. arrière tuuti rek. salaamaaleykum taxawal nii nag bul booy bouger ma lay galgal. <laughs> waaw salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum àddina. Mhm. maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp. Mhm. di nuyu ñëpp. Mhm. di sant samay mbokk di sant samay ñaari waajur di sant ñëpp. den wax na ne aca ñu dem Touba daal. cëm boo ma ci doon may acapella voix bi doo ma ci may tuuti rek par lancement ma xool voix bi. ñun muritu laay muritu laay. su magal jotee. te ñu takku jóg yaay oh wuteli yaay baay Bamba wooteey tëm jërëjëfe Bamba jaajëfe Bamba hëy gay Bamba mi waral coow li jërëjëfe Bamba hëy Bamba thank you ah! ndeysaan du nu tee dem dem tuubaay waaw xanaa du bamba moo wootee màggal gi ñëw naay. waaw yegsi na. kon corona du ñu tee dem. corona mënu ci dara. dañuy dem. bàyyi ci dara. xanaa du bamba moo wootee. yaayu corona mënu ci dara. dañuy dem. dañuy dem benn Mbend Gueye nee na dañuy dem. waaw dañoo war a dem li nga wax ci Ila Touba. Ah. te Mbend Gueye juddu jour màggalu Touba. di doomu Marème Fall. macha allah Mbend Gueye boobu nag dama bëgg. Mhm. nga wayal ma ko tuuti rek parce que jour màggalu Touba la juddu. macha allah kooku bisam moo nar di ñëw nii. di safar waaw. mende gay ñoo ngi joobe doomu nday Marème mm, Fall doomu oh. yow xam nga ni sa bés ñëwaat na ñu àndandoo takku yaay dem tu dem tu dem tu baay menda dundal loo dundu doyul sa bés ñëwaat na yeye mende gay sa bés ñëwaat na ah. waaw waaw mi ngi noonu xale baa ngi noonu vraiment papiko lu la xiir ci way roy Serigne Touba au fond sa xol nga ngay joxe booy wax ci Serigne Touba. ndeysaan kooku su may wax ci moom sax am naa yaakaar ne fii laay fanaan. Mhm. ndax dafa nekk koo xamante ni. Mhm. mën naan daal defal nañ loo xamante ni ci àddina mhm. ñun mënuñu ko fay mhm. muy murit beeg tiyaan beeg xaadir beeg layen beeg képp koo xamante ni daal yaa ngi naan yaa ngi yaa ngi wax ashhadu an laa ilaaha illallaah ma ashhadu anna muhammadan rasulullah war nga ko delloo njëkkal Coumba loolu la wax muy sama première vidéo boo xamante nii mhm. sëñ Tuubaa laa ko jagleel am na yu ne si ginnaaw nag yoo xamante ni yeneen si ginnaaw ci kàttanu yàlla kon tey mën naa wax ñu dem xooli ko ñëwaat waaw mën nañu dem xooli comme ça waaw après rek après rek nga sant gaa yëpp jox leen rendez-vous Touba waaw jox leen rendez-vous Touba jeex na yóbbu ma ma ñu dem Touba dem dem dem yaay utali yaay dem tuutu baay Bamba woote jërëjëfe Bamba jaajëfe Bamba Bamba mi waral coow li jërëjëfe Bamba jërëjëfe Bamba jaajëfe Bamba Bamba mi waral coow li jërëjëfe Bamba Bambo thank nun de corona dunu tee dem dem Dubaay xanaa du Bamba moo tee magal bi ñëw na corona duñu tee dem su dee reye nañu dem du Bamba moo tee nanu dem corona duñu tee dem su dee rëyee nañu dem jërëjëfi maam Cheikh Ibrahima Fall jërëjëfi maam Cheikh Fall du yaa ñu nital Bamboy Ibra Fall képp kuy fay Fall wañ yaa ko moom Fall Sëriñ Saliou daal njanaaw yi sax ñu jooy yu xuba far xalam mbaay sëriñ saali wooy ñibbi naay borom jàmm ji sëñ muntaxaay borom mbégte mi sëñ muntaxaay borom xasida yi sëñ muntaxaay borom jàmm jee sëñ Muntaxa albasiiru mooy baay ba sëñ Muntaxa borom jàmm jee borom jàmm jee sëñ borom mbégte mi am xiin am talmat am tungune am waaye bàyyi leen ma waaye am ndeer am cung cung bi Airbus <laughs> cung waxuñu la de am <laughs> cung bi ak xiin ak xiin bi xiin bi nag moo tëj lépp <laughs> alors waaw Papiko lan ngay tàggatoo gars yi lan nga leen di wax waaw maa ngi jox ñëpp rendez-vous mhm. naan leen Papiko groupe musique mhm. album bi dina disponible premier décembre ci kattanu yàlla mhm. Papiko mi ngi ay affaire garaaw yoo xam ne daal ci kattanu yàlla ak mbaaxam. mooy projet bi dëkk bi nar na yëngu daal. nar na yëngu. ñu ngi def benn concert le 24 décembre. ci kattanu yàlla voilà programme laa bëggoon xam. kañ la boobu le 24 décembre lay doon. fan la jàkkaarloo fan si wax leen foofu sama fief lañ lañ koy defee Parcelles Assainies unité 11. Mhm. si côté maire bi noonu. Mhm. nga ciy woo ñan. ma si woo ñëpp ku ci mel ne Del Pero. sama eh, doomu ndey Del sama boy la. sama xarit la. mais ak jabar ji. waaw sama maa mariage ba. sama sama doomu ndey Papa Lam. doomu ndey Papa Lam seen waaw. Oh, mais delloo. di gërëm mafia bépp. mafia bi yëpp ñoom Ndiago Oro. ku ci mel ni Ndiago Oro moom jàpp na si bu baax a baax. Ah, macha allah di gërëm Moustapha mi réalisé vidéo bi. Moustapha waaw samay mbokk aw ma seen fay. ñun jàpp nañu si bopp gërëm bu baax mu jàppale di gërëm Paul Pogba sama ah, xarit. Paul Pogba waaw moom it baax a baax a baax. merci beaucoup gars yi daal aw ma seen fay di leen wax la doon contacter lan nga leen di wax fu ñu lay woowee. waaw 77 la numéro bi 385 52 64. képp ku soxla Papico groupe musique rek. soo ko contacter foofu di nga mi ngi ni <laughs> madame Dalpero Jagoro xale baa ngi ni <laughs> yal na ko yàlla gunge ci baat bu neex bi. amiin waay ko sargal ko. amiin naa ci yow de kontaan naa ci yow. di la wax ni une très bonne continuation. yàlla protéger la protéger famille bi. amiin waay voilà daagul ndànk dugg fu la neex. <laughs> ma ñëw. jërëjëf ñu ngi dem Touba. xale baa ngi noonu ñaanal leen ko parce que ñoom ñëpp màggalu màggal bee leen tax a jóg. alors may dugal suma dernière invité nag moom tamit muy xale bu am fit bu mën a way Baye Ndongo ana Baye Ndongo na ñëw léegi teg ma jox ma benn clip bu la neex en attendant ma dugal Baye Ndongo ma dem respiré wul tuuti ñëwaat sant sëriñ waaw Baye Ndongo gi noonu ah jantal booy xale bu mën a way doomu nday Marème Fall fële ca bun waaw Wally Seck xaar ma ma ñëw yaay tëj jantal booy oh balaay sa buree eh. eh, sëriñ Mbàkke ak maaram oh. sëriñu maam Cerno Birahim ndaamal la ca daaru sëriñ Bamba mooy waaja oh. moo waral màggal gi moo waral teraanga yi ah! julli gi mu julli ci géej gi loolu la ko yàlla sunu borom fayee jumaa ja ca Touba. ku ci sa maam defoon dig. jumaa ja ca Touba. Mbacke balay sa moom lañ ko fayee jumaa ja ca Njaareem. moom lañ ko fayee. ji naan pare na fa la ñuy waaje dem Touba ak Njaareem. Mbakiru Faye ñu ngi lay nuyu Bayu Lamine Faye. Serigne Bamba yaay jenn waayoo. Oh. jenn waay. oh neex na ci xol waay. sëriñ Bamba waral màggal gi. xale bee mën a way. kooku moo di bàyyi sëriñ Fallou Mbacke sama sang bi. Ah! ku bëgg Fallou bëgg naa la loo mel ak noo mën a mel. ku bañ Fallou nag. ku bañ fallu bañ naa la noo mën a yor loo mën a mel. déedéet. ma bëgg bàyyi mbeen yow. ah. bàyyi sëriñ Abdou Karim Mbacke borom ndindeeg nit ñi. ay ya ma tawal foofu borom ndindeeg nit ñi déglu leen yeggalil. baayu sëriñ Abdou Karim Mbacke borom nit ndéeg nit ñi. dëgg waaye sama yaay yaa bëgg sëriñ Falloo. yaay faatu Mbay yaay Fatou Seen. yaay yaay yaa. am taaw. Ah. mbay ma tend kaati njaay mi ci jolo la mbay ma jigeen seen. jëm ma xarek dame mi ci gaaw bu ñaawul bi mer oh. mbaya dundal say may di baawal. sama yaay waay a ah. sama baay ba nii jooy te noppeegunu. jëm baayu Malick Seeno. Mm. baayu aadata mm. sama baay ba la ñuy jooy te noppeegunu nongo loolu may jox ani bale su magal ma saana jot ah. dafay jiital njaboot ji. Hmm. àndandoo ak ñoom dem kër sëñ Cheikh Gueye. su demee fekk fa waa seeneen. Ah! ñu fekk fa kër mbak Mbàkke soxna loo hmm. lanu doyloo. fekk fa sama papa Jomba ñaawi. Hmm. seeneen gépp dañuy teew. ñu màggale waaw waaw waaw baay baay ñu ngi lay jooy te noppeegu noo. ah waaw yow sama rek foo nekkoon ci senegal waaw Don maa ngi lay nuyu. waaye man bul ma nuyu fan nga nekkoon ci Sénégal. waaw maa ngi nekkoon fii rek ci ruq bi rek. nekk Kër ma saar sama pari la France. Mhm. maa ngi leen di nuyu di leen siyaar waa Kër ma Massar banlieue sama pari la France. mais mës nga ñëw Tale Plateau. waaw mës naa fi jaar. émission kan la woon. émission ñoom Omaro. waaw waa jaaroon naa fi waaye yow moom yàlla moo def. ah ma sopp la ma bëgg la. Mhm. te yow sa émission bi dama naan képp ku fi jaarut. Mhm. waaw maanaam wóorut. waaw oh. ñàkk fee jaar wóorul. parce que dama lay libéré. waaw ndax da bàyyi la sa dugg bi déjà dafa riche. waaw ndeysaan. ma lay wax ci Mbène Gueye looy wax ci Mbène Gueye Mbenda Gueye ak Marème Fall. waaye Marème Fall Marème Fall sama jigéen bi yaa waral lii. mbënd tey la anniversaire am doomu nday marem Fall. Mbayang Fall. waaw waaw. su ma ñëwee fii yow yaa ko waral. dëgg doomu yaayu Mbengue Fall. mbënd mbënd Guèye. doomu yaayu Mbënd Guèye la. ak am jom. menda mm. ah bis bi nga judd Maurice lool. waaw waaw yaa judd bisu màggalu Touba. waaw waaw yal na nga law yal na nga barkel yal na nga màgg ni màggalu Touba. doomu yaayu Marème Fall Marème sama jigéen bi naxuloo ma benn yoon ak bëgg Serigne Abdou Karim Mbacke ak xam nitam ak man nitam lool Marème Fall mm. tey ma di la joobe sama jigéen bi yaa waral li mare mhm. mooy faal dundal say may di baawaan. très bien xale baa ngi nii vraiment ñu lay ñaanal une très bonne continuation. ma bëggoon xam euh, euh, lan ngay mbébét ci way bi ngay way lan ngay mbébét ci projet yi nga entamé soit ab après Magalu Touba bi lan nga jëfee pour def ko. waaw ton damay nuyuwaat rek sama waa Paris la France. muy waa Kër Massar. Mhm. ndax nu ma mel ñoom la. maa ngi ah bon mbaa mi ngi def li mu war a def. ndax moo def Kër ma Massar ni Kër Massar mel. très bien kon ñu ngi koy félicité waaw macha allah léegi doon na département. Mhm. waaw lépp rek. ngir ngëm-ngëmam la meng mbooro Seri mhm. Diarra ak Khady Gaye mhm. lay siyaar di la nuyu très bien waa di nuyu sama yaay Mariama Faye mooy dëgg sama yaay Mariama Faye kooku Serigne Baara mooy maamam ah! borom keeskaay mhm. benn dëkk ñaari gaar yaay maa ngi lay bégee yaay Ousmane yaay Abdou Diodio borom billo bi très bien maa ngi lay siyaar yaay Baye Modou Sène ndeysaan lay siyaar alors ñu ñu déggoon na ni yaa ngi def ay sorties mais toujours yaa ngi yem ci banlieue bi amagoo projet sur le plan international non wax dëgg yàlla amagul amagun ko nag. tey bu ñu la doon contacter nan la ñuy def pour ku la bëggoon jot. waaw wala jot sa manager. pour pour liggéey ak yow nu muy def. waaw da ngay da ngay da ngay jël numéro bi. waxee ko waaw numéro bi mu ngi nekk 77. 038. 88 19. répété waat ko waaw 77. 038. 98. 19. mooy numéro bi. Mhm. boo ci wootee da ngay jot Baye Ndongo. Mhm. da ngay jot ménager am. Mhm. waaw loo bëgg ak noo ko bëggee muy mariage. ngénte ci da ngay def ay mariage maa ngi ci jàkkaarloo yi di ko toj. waay non non lay wax ni yow. banlieue bi. sa làng lu mu ris ris bu ci bàyyi ndongo taxawul. di ndaama ndaama mbaa muy alaala. waaw bëgg sa bopp mbaa muy taba taba timma sa làng day des. très bien waaw. banlieue bi ñoo ma bëggal seen bopp ku xewlee bala ngaa woo kenn da ngay woo bàyyi ndongo ba mu jàpp. Mhm. waa rawatina Kër ma saar ndeysaan waaw nga xam ne foofu li muy yaatu ndaanaa ne li ni bari loolu. Mhm. waaye bu ñu jugee ne bàyyi ndongo. Mhm. ñoo ma def li ma doon. macha allah yal na la yàlla gën a may baat bi gën a wér. amiin yàlla dooleel la. alors ñan ñoo lay jàppale di la gunge toujours si sa liggéey. waaw mën naa tàmbalee ci yow. sax ndax ku ne ku ne Marème. Mhm, ñu doon jéego Marème maa dërëm la woon ba ay million waaw. Mhm. ok non waaye mooy dëgg laay. damal nga lan. waxal lu la neex ndax Marème waaw Marème dafa dafa dafa day jàpp ci sama yoon. Mhm. dafa am jom bu dafa am jom. doon jigéen ju mën góor. wallaay am fit am jom daan daxanteeg policiers yi fële ca Napoli fekk naa ko foofu. non macha allah day xeex yi ma ne ko Marème mu ne ma passeport diplomate laa yor bàyyi ma ak ñoom. bilaay ak am fit xale bi dem ba bitim réew ñëw. Mhm. teral installé samp nag société am ay employé fay teral ay waajuram waaw teral na ndayam teral ñëpp ñu mu war a teral teral na ndayam sëñ Bamba mën nitam loolu sama kanam waaw daf may jàppale hmm. ku mel ni Awa Kebe Kebe Njugo Ale Kebe Njugo Ale waaw yaay Pape Babacar hmm, hmm. kooku Mama Fat Diop mooy yaayam Babacar Kebe Babacar Kebe borom ah mooy baayam Amérique waaw kooku di ci nuyu Baye Biya fële ci Amérique ndeysaan Baye Biya tamit mi ngi def lu extraordinaire kooku moo ma jàppale mhm. ku mel ni Fatou Sène ci anen oh. samba mi ci Guynaar borom oh. Italiano Séeri Ibrahima Junni ci yàlla bàyyu xaadim xaadim waaw sama jarbaat waaw barke Serigne Touba barke Serigne Touba ma jàppale sama vidéo bi ma njëkk a def muy alalaa bi mm. moom mii mm-hmm. muy faatu Seen moo yëkkati junni yi bari jox ma awa kebe ñëw feelu ko mm-hmm. ma tourné vidéo bi non dañu am jom xale yi waaw ñoo may jàppale mm-hmm. ku ma limul nag na nga xam ne damaa juum waaye ñu may jàppale macha allah bari nañ trop waaw ñaanalal sama papa bi génn àdduna te doomam nekk ci kër gi muy Maguette Meng dit gam gandek mu nekkoon fële ca Ngor Almadi Wakaam di suñu pa pa Maguette Meng doon liggéey Sud Café ñu koy jaale Alain le PDG de Sud Café di ko jaale Alain di ko jaale borom kër gi Pape Maguette Meng ñaanal ko waaw Pape Meng ñu ngi ñaan yàlla suñu borom xare ko ci àjjana yi gën a kawe mhm. fa mu nekk gënal ko mhm. fi mu jugee amiin waa te yàlla suñu borom xare ko ci àjjana yi gën a kawe daal di ko ñaanal di wax njabootam mhm. waa ñun ñëpp waa ñun sax ay njabootam lañ di wax njabootam yëpp nañu muñ te yàlla jox leen xolu muñ waaw yàlla xare ko ci àjjana ya gën a kawe ndax bu ko yàlla fayee xolam rek waa dañuy xel day dal très bien mi ngi noonu xale baa ngi nii bàyyi nongo bàyyi lan ngay wax gaa la fin ñu tëj émission bi. waaw dem Touba nag. waaw lijjanti ji suñu bopp. waaw di wax ne nag waaw na ñëpp waaj. Mhm. ñu dem Touba. Mhm. màggal yi. Mhm. bu kenn ragal. bu kenn tiit. ñu daw ndànk chauffeur yi nga xamadi yi. waaw nañ daw ndànk yegg ndànk kon la ci sama sang ba daan wax rek sëñ Fallou. Ah. waaw di gërëm nag sama staff. di gërëm fan si bi. di gërëm bàyyi ndongo yu ndaw yi xale yi alalaa ndaw yi. di gërëm mag ñi. ak ñëpp su ma limee damay juum di gërëm sama staff bu baax a baax. Mhm. ndax lépp ñoom la. Mhm. ñoom ñoo ma dooleel ñoo ma jàppale. waa si Cité Sococim ñu ngi lay ñaanal. waaw Amary Pouy waa Pape Saliou Pouy di baayam soxna mama Combaan di yaayam yaayam fële ca cité Sococim di magu bàyyi boo sama rakk jooju sama xarit jooju nekk ajana ak Massata ak Fat Pouy ak Ndaak Eder nuyul ma leen waa cité Sococim ñu ne nañu xale bee mën a way waa cité Sococim Amari Amari maa ngi lay bégee mhm. maa ñaanal maa ngi lay mhm. bégee ma bëgg la Amari Pouy ci barke màggal gi cité nga yokk ba yëkkoo mhm. yaag waa cité Sococim yëpp yar waaw très bien léegi daal contact yi euh, a soxla fu mu lay fekk. waaw ku ma soxla ko comme ni ma ko waxee rek. waaw siège bi fi ñu dëkk. Naar déglul mu ngi nekk Kër Massar. Mhm. waaye képp ku soxla Baye Ndongo Sène. ak mhm. orchestre am muy mhm. groupe jàmm. groupe jàmm ah yow loo gis ci ndongolo. waaw man dama ko bëgg groupe jàmm sànq def nga benn wax nga benn noyyi nga benn noyyi boo xam ni ma yaa ngi may dégg. maanaam oh comme ndongolo. am am du ma taxa soppeeku géwal lay doon moom la ñuy tëje ma di la woo yaay di woo di woo soo ma woowee ma wuy si la ah, mokki du doon jéego ndawan la waaw soo ma woowee ma wuy la ah li dafa nax ci xol e Ousseyn dal jàmm bay baa ngi nii yàlla na ko yàlla gu nga teg ko loxo li muy wax nee na chauffeur yi nañ daw ndànk màggal gi nañ leen dem siyaare ji sëriñ bi ñaanal ko waaw lan ngay wax tamit Baye Fall yi sa koñ waa di wax kafe ga waaw Baye Fall yi kontaan ci ñoom <laughs> Kër Massar ndeysaan Kër Massar bañ dalee waaj màggal gi ba léegi wallaay saa yoo tali yi safar yi hmm, macha allah biir koñ yi sotoraak hmm, hmm. Daaru Rahman Daaru Rahman Grand Médine Alaaji Paate oh. station mhm. foo tourné ci Kër Massar su suma mhm. limee damay juum mhm. foo tourné macha allah voilà gars ñu ngi safar très bien di waaj fii ngir waaw waaw ilaa Touba waa yegalil di wax nag di ñaanal ñëpp yàlla suñu borom yombal paas yi waaw paas yi man da joxe naa paas bay bëgg a ah, dee mais jar na ko loolu xam naa ci dara jar na ko doon xam naa ci dafa ni ma xam naa ni yaa ngi ci wàccaay màggal gi mais maa ngi ñëw ñu gisee xam naa ci dara moom xam na ah? Fan Suwaali Seck Pa Oussou mi ngi lay nuyu tëngeej mooy Pa Oussou boy grand bi géré moo bi ngom nee ma xale bee mën a way Ousin dal jàmm tamit nee na mi ngi lay nuyu fële ca cité mista gars ñu tàggatoo di leen ñaanal gudd fan ak di leen jox rendez-vous ñu ñëwaat daf daf daf indi indi orchestre ma def live. ndeysaan def live. voilà daw leen ndànk dal ndànk. ndeysaan bisimilahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin tëjeel ma Waly Seck bi waaye bàyyi faal bi rek ñu gunge.